Euh, toujours ñu ngi ci li nga xam ne moom mooy caravane ndogu pour tous bi nga xamante ne Adama Ndiéguène moo nekk ci bopp bi tey nag euh, service régional du transport moom moo amee bis bi euh, ñu nekk nag ak koo xamante ne collaborateur la ci ñi nga xamante ne mooy service boobu dañ koy bàyyi rek mu def présentation am sëñ bi. salaamaaleykum. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad فات لما أولغ الخاتم لما صبح الناصر بالحق بالحق والهاده أسرات المستحيم ولا لي حق خدر ومحدار عظيم من ما تدو عبدو بنجيجن نك ديفيزيون ريجونال دي ترانسبورت ترس تاي بس بي دنكو جاغلي وا ترانسبورت ترس كم كو لب لوي ريليجيو اك دين سي ترانسبورت من ماكو فايور دنج سي واختان اك سونو كليفو مي الون غي مو رافيت لوكو gis ni initiative bu rafet la ñi commencé fa programme ba wàcce fa alxuraan yi ci suba ay à 9 heures wa yónnee ko way daw di doon liggéey ci service ba sunuy collaborateurs yu yàlla. defal leen kaamil bi euh, ci suba yónnee leen ko comme ñëpp xam na ni mille transport après 14 heures day am day tas nit ñi dañuy ñibbi seen kër ñu bëgg a am initiative continuer loolu si lañ waxtaane man ak moom. mu ni ma loo si xalaat ma ne ko man dama bëggoon ñu jëlaat mbir mi ngoon si ñu def ko production man ma jël programme mu ngoon si yow nga jël kaamil bi ñi togg comme ni ko njigéen di defee bis bu nekk mënuñu wàcce kaamil rek dañuy faussé programme bi loolu moo indi ñu indi ko tey mbuur kaat fekk fi sunu yaay yu baax fekk fi oustaz Diouf mom nga xamni ni coordonner ñi profito di lancer message bi pour nit ñi deglu ñu mëna dimbali wañu daara yi bi nga xamni amna fi ci fii kat aja nday Ndaw moy bi wéru koor ñepp xam nañ ni lu nit doon def ci lu baax ben wéru koor dang ko ru ful ndax wér la bo xamni boko la ding ko kon bu la yàlla nga fekke ko lepp lo def ci lu baax pour dimbali new doole dimbali ñi nga xamni tay ñoo ngi fi mais li la yomb jafe na leen ngir yàlla rek gisuñu si yàlla buñ ci gis suñu bopp dañ ko def ngir yàlla rek loolu ñu bëgg nag euh, continuer initiative boobu bëgg mu nekk loo xam ni lu lu doon di gërëm bëggul sax ku koy gërëm mais yàlla moo ku dul gërëm di ndoo gërëm yàlla euh, ndooy baaba duudu njëgeen muy am xalaat bi initiative bi depuis koor ga ba léegi tey la ci xaw ma quatorzième jour ou bien quinzième jours te nii la koy jàppoo ba la trente chaque jour mu dem si benn koñ wala dem seeti ay nit togg yu mel ni jox ko les diminuer nit ñëw doole yi kooku bu bëggul ko ko gërëm mais mënoo ko bañ a gërëm ndax xalaat bi yëpp moom moom la sa dulli yamul si li rek ku xam jigen jigen prison sax lañ koy woy mo ngi si ni new doole mo ngi prison ku fa nek xam nga ni to sa bop dara lepp dañ la koy defal ni ñaa la fay fek dimbali la ni ñaa la fay fek jappale la mom lolu moy li tamit biñ ko xalaté daara yi fi euh, oustaz diouf dina sidik ndax moko mais ñepp xam na bu heure ndogu jotté da ngay gis xalé yu ndaw ndawani ñu yoré sen pot fu nek ñu fay dug di yalwaan kon buñ défé li lolu mom si xalaatam la luñ ci am ben tamit mom am voilà. voilà intervention da ngeen dem hôpital régional dem INAS la mo waral ngeen choisir fou. voilà bo gisé ñu choisir euh, trois sites premier site bi mois Daara yi. daara yi si koñ bi wax naa ko sànq pour bañ répétition mooy xale yi mm-hmm. euh, sëriñu daara yi fii dañoo néew doole te dañ leen di jox xale yi dem ak ñoom te booy xool xale yi nekk fii yëpp dëkkuñu si dëkk bi ay village la ñu jóge ñëw fii moo tax ñu ciblé leen pour ndogu bi bu dee bu dul bis bu nekk sax mais muy bisu tey boo xam ñun ndogu ak xel mu dal mm-hmm. ñun ndogu ak euh, posé xam ni tey amul yalwaani tey loolu lañu moo tax ñu sible daara yi beneen bi hôpital Euh, ni fa indi malade boo xoolee ñu bari dëkkuñu fi accompagnateur lañ dañu gunge malade yi nekk ak ñoom mais bu ndogu jotee hôpital dinañ leen jox lekk mais lekk ba pour malade bi la du accompagnateur bi lay hôpital di toggal hôpital malade bi lay jox boo tax seen alimentation bi du xaw a neex ndax régime bi moo tax ñu nit ñu sóor ñooñu dekkuñu fi heure ndogu jamit dinañ bëgg ndogu dem di jënd añ restaurant yi ñi ni nañ leen fexé suñu kéemtalaay mënu ñu matal sax way ñi jéem dem la fa am ku ci sa wërse nga jël ko moo tax ñi cible foofu banen bi euh, point bi moy inas ñepp xam nañ ni ay ay ay nit ñu yalla mur seeni bëtt lañ ñoom dekkuñu fi ñu ci bari ay dekk la ñew dekk fofu nekk fa comme internat ñoom mënaluñ seen bop dara luñ def dañ leen ko defal ñi xalaat ñoom yobul leen japp ci def ngir yalla tamit pour bis bi dimbale loolu moo tax ñi tànn ñetti euh, ñetti ñetti sit yooyu voilà sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne laysa al muminu billadi yashbau wa jaaru jaari ñu ni kii ngëmam dëgguwul ñu ni ko kii danay julli danay woor danay dem mag mu ni waaye ngëmam dëgguwul ñu ne ko lu tax mu ni ki nga xamee ne day lekk day lekk ba reg gis dëkkandooram xiif mu lekk bàyyi ko nee na kooku ngëmam dëggul loolu la xam nag te mu defee ko ci bisu koor te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xamee ne jox nga nit mu lekk nee na kooku ki nga jox mu lekk am nga yool bu toll noonu te yow mit sa yool du wàññeeku ci moom kon loolu am na jëriñ lool ndax yàlla amul lu gë lu gën doomu aadama doomu aadama rek la am wax na it ba tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jox nit benn nit mu lekk nee na moo gën tabax junne jumaa kon loolu ñoom abdu loolu ak xam ñu xam ne mënu luñ defal yàlla lu gën jox nit mu lekk ñoom ñu taxaw ci loolu ñun ñi nga xamee ne wax dëgg yàlla ñu ngi ñu ngi taxaw loolu ci suñu dong yi ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla yalla yalla gën leena jappalé ñi nga and nak yaayu daar yi nek ñu nak Mbour 3 Mbour 4 fi ci ak route Dakar 2 seen présidente mi ngi ni taxaw mu adjay nday Ndaw solo bis mi ay ñu def ñu luddul contant be mi ngi sante yalla julli ci yonent bi mi ngi sant tam njëgin mi nga xam ne ñu ko andil fi ndax ñun ay ndey daara leen rek yo xam dañu liggéey ngir daara yi dañoo am suñu cellule bu nga xam dañu di togal ndongay yi te avant boobu dafa fekkoon ni dañuy tibbal kenn ku ne am nga sa ndongo booy tibbal di ko toppatoo ah bi yàlla defee nag ñu monté ñu cellule bi ci la ñuy def nag di togg de temps en temps mënuñu chaque jour nag ndax suñu doolee àggagu fa waaye ñu ngi koy ñaan yàlla suñu borom mu jàppale nu ci ak képp ku nga xamante ni bonne volonté nga boo xam ne mën nga noo jàppale dimbale ñu ci Mbour 3 ah, nga defal ñu ko lii ñu def fii nag dañ cee bëgg kontaan ci ñu ñaan yàlla bu déwee nag jàmm ñu fekkee ko te tal ko mu gën a yaatu ñu gën ko yaatal loolu mooy sunu initiative bi Astou maa ngi nekk pédiatrie comme agent de liaison fii laay liggéey ànd ak sama collègue yi Astulo ak euh, ami ba ma dem Faye bon li tax ñuy def lii ñun hôpital lañ nekk yàgg fi ren mooy sunu deuxième édition plat du cœur bi daaw dañ ko def mu metti ren ñu dugg ñu ne pourquoi pas ñu dem ci ñi ñu baax ñi ñu jàpp ci. alors que bañ defee loolu ma dem gis sama frère moom mi ngi nekk service des mines ñoo bokk baay ñoo bokk lépp mu ne loolu lu rafet la dinañ ci jàpp. fan yëpp ñu ngi togg di indi di servi malade yi di leen jàppale parce que dañ fi ñëw duñ fi am mbokk duñ fi am dara yow loor leen rek di jënd ordonnance rek dafa metti déjà kon buñ gisee ku leen mën a jàppale di leen jox xéewal yu baax comme ni ñuy lekk suñu kër comme ni ko Abdou waxee daf ñuy dafay baax ndax ko booy def lu baax yàlla rek moo lay fay ku ci def lu baax yàlla moo lay fay ba pare li lu ñu war la parce que dañoo ne ci hôpital bi ñu tuddee ko sunu maam ñu ñoo ko war a ñee duñ jàppale ba ñee ñu jàpp ci ñu ñëpp liggéey defar mu baax moo ñu tax a jóg kon lii bu ñu koy def lu baax la. kii suñu sama frère la man Abdou Ba depuis bu ñu ko ko waxee moom tamit mu ni tey day togg andi ñun bu ñu toog bu ñu def dara depuis boobu chaque jour premier jour bi ba tey ñu ngi togg di andi lii ku koy def yàlla rek nga koy defal ak sa bopp defaloo ko kenn jàppale malade nag moo moo tax ñun ñuy def lii ndax ñun ci hôpital bi lañ nekk gis malade yi li ñuy dund di jënd ay ordonnance di jënd ay lekk di ko def. bu ñëw boo ñëwee fii sa yaram sax day daw ñom ñëpp dañ ñi ñaan ñaar yoy rek ñun lañu soxla soxla wuñu leneen soxla wuñu ngistal soxla wuñu dërëmu kenn soxla wuñu alalu kenn ñun appel ban appel ngeen di lancer ñi nga xam yalla daf leen dénk euh, teranga tey euh, waa ñoom ku ñëw ku ñëw ku ku ku am da loy dimbalé na nga ñëw dimbalé malade ba koor gi jeex chaque jour ñu nañuy togg affiche baa ci buñu hôpital bi ku ñëw bëgg japp dal bo boo ci hôpital bo laccé rek dinañ la wax ñi togg ak ñi jappalé hôpital ak ñi jappalé malade nañ la ko wan assalamu alaykum wa rahmatullah man la Serigne Djité président club des amis de Sud FM bu Thiès. Euh, euh, euh, ci li xam ci ànd waaw man damay sant yàlla julli ci yonent bi sant sumay ñaari waajur sant aussi tamit kii nga xamante ni suma doomu ndey la muy Abdou Ba njegeen parce que lii daf ma inspiré waat ci lu bare bare bare bare bare te it aussi tamit ONG yi nga xamante ni ñu ngi dem di laaj ah, alal ci bitim réew. ko indi fii la gën a yeyoo hôpital yi ñi nga xamante ni ay malaat lañu seen ordonnance rek moom mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko satisfaire waxantuma ak lekk geeg naan gi kon ku indi ci hôpital ak prison defal nga yàlla ak euh, fi nga xamante ni mooy armeel yi ñett yooyu ku ci dem ku ne di nga xalaat ëllëg loo mënoon a def def ko borom barke yi ñëpp ñi nga xamante ni vraiment ñoo nekk ci dëkk bi ñu xool hôpital yi seet malaat yi parce que tey boo gisee tey Abdou Ba xéewal yi mu fi indi tey jii niñ ci niñ ci exprimer woo nga xam ni vraiment soxla nañu ku leen jàppale ñu ngi woo ñi nga xamante ni mooy ONG yi ak association yi nga xamante ni euh, ñu ngi ci dëkk bi nii dañuy def lu baax am nañu fu ñu mën a def lu baax parce que koo xamante ni woor na ba ngoon jot nga yëkkati ndogu jox ko kooku mënoo ko fay kon ñu ngi leen di ñaan ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi bëgg def lu baax def am yool am na fu mu jekke vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp particulièrement euh, transport bi nga xamante ni fa la Abdou di liggéeyee. yàlla. mu ñu jagleel bis bi ndax lan tubaab naa l'homme propose Dieu dispose nit dina bëgg def lu baax mais yàlla moo la si dimbali nga def ko lii boo gisee ñi def ko def ndogu pour tous dañ koy sant di gërëm njëgeen ndooy bëggul ku ko gërëm mais tout le temps damay insister si parole ndax euh, def lu baax ki ko xalaat wan la yoon bi kooku mënoo ko fay kon lii lépp xalaatam la di koor gi commencé ba tey quinzième jour chaque jour ñu dem fenn togg indi jox nit ñi ngir yàlla tax boo gisee tey ñu nekk fi hôpital di séddale comme ñu ko waxee euh, hôpital dafa nekk euh, un lieu boo xam ne képp ku fi indi sa bopp rek gënalu la ku fi ñëw rek du lu la gënal moo la fi indi mais dogalu sunu borom moo la fi indi te da ngay nekk ak malaat woor ba ngoon wax dëgg yàlla war ngaa mën a ndogu lu baax waaw lu baax nag yàlla rek ko am mais dañuy jéem moo tax ñu bëgg tey a ah, bis bi ñu fexe toggal leen ndog yoo xam ni ah sunu kéemtalaay kàttan mooy ndog yi ñuy ndogoo sunu kër yi hmm. ñoom ñu am ndog yooyu loolu moo tax tey ñu indi ko fi en collaboration ak ah, sama ah, rak as su njegeen ñoom lu mel nii la ñuy def chaque jour ak caba si hôpital bi ñoom it chaque jour lii ñuy def la ñuy def chaque jour ñu togg ndogu joxe ndax hôpital dafa yaat département yi dafa yaatu ñoom it lu mel noonu la ñuy def fii muy sama rak boo xam ne aussi tamit maa ngi koy ñaanal yàlla di daal lii ñuy def ñoo ngi ñaax képp kuy nit ku baax képp ku bëgg lu baax képp ku yàlla wërsëgale dara nga liggéey sunu borom nga jéem a góorlu si yu mel nii ndax lii mooy li nga xam ne yàlla rek moo tax ku ko ku bëgg a liggéeyal yàlla weeru koor bi boo doon def benn fexeel def fukk dimbali néew doole yi dimbali les diminuer parce que li la yomb am na ku mu jafe waaw bul ko xeeb.